ci ay fànn yu bëri bokk nañu souvent ci ah, daje ci liggéey yu ni mel <laughs> euh, ah. di itam nuyu ñu bu baax ñi leen di déglu ci ah. biir dëkk beeg bitim réew xam nga ñun souvent dañuy faral di am mandute gu rëy ci affaire xolu politiciens yi mm-hmm. dañ ciy mandu souvent euh, ndax li tax mooy souvent xuloo yi nuy faral di xuloo boo ci léeg boo ci dugalee sa baat ñu am fuñ la féetalee ci situation par parlo ndax de plus en plus wax ñu déglu la dafa xaw a jafe mhm. de plus en plus au Sénégal ci wàllu politique mhm. mais ñu koy suivre bu baax a baax a baax bi mu commencé ba tey ñu ngi koy suivre bu baax nag ndax ndox bokk na ci li nga xamante ni ñun ci société civile bi ci ONG yi ci forum social sénégalais et africain et même mondiale ndox bokk na li tax ñu juddu. Mhm. forum social mondiale mu ngi juddoo Brésil. ci Porto Alegre dëkk boo xamante ni pendant pratiquement vingt ans ndox dafa manqué woon. Mhm. assainissement manqué fa. jigéen ñi dañ daan xëy dox cinq kilomètres wuti ndox foofu. assainissement ci dëkk boo xamante ni tiens-toi bien ci ay collines la ak ay. ay ay dune ak ay montagne ñu toog ba si yàgg jigéen ñi ne lii mënatul wéy il faut ñu trouver solution fekk na ci jamono yooyu lu laa moo nekkoon fa maire jigéen ñi màbb dem seeti ko ne ko mënatuñu bu ñu xëyee dox cinq kilomètres wuti ndox ñëw bugg a toppatoo njaboot gi toppatoo famille bi ak suñuy jëkkër ba pare nag ñi ci am problème mu santé war a doog a dem ci faju ji moo tax fu ñun ndox bokk na ci les premiers droits xeex nañu sax ñun bokk nañ ci ñuy xeex ba Nations Unies reconnaître ndox ak assainissement comme étant ak comme doomu aadama moo tax pour ñun débat bi ngay wax mm-hmm. ah suñuy gët ñu ngi ci bu baax ak suñuy nopp mm-hmm. far ñu ciy fenn nag mm-hmm. mais xaw nañu ñaawlu bu baax nag doxalin bi ndax am na yoo xamante ni soxlawut woon muy feeñ ci mbedd mi wala ci réseaux mm. ci place publique bi bu dee dañuy liggéey ci gouvernement am na yoo xamante ni ci biir gouvernement lañ koy régler mm-hmm. defe naa ni ku fàttaliku jamono président Sédar wala même Abdou Diouf lu nu mel kenn mësu ko gis bu dee am na ay jafe-jafe diggante acteur politique yi ak hiérarchie décisionnelle yi ci mm-hmm. ministère yi wala ci gouvernement bi conseil des ministres am na réunion ministérielle am na réunion interministérielle am na mhm. réunion entre premier ministre ak les services techniques concernés am na de sorte que rafetoon na ñu mun ko faa régler te kenn xamal ñu yoo xamante ni mhm. ñu ngi koy dégg mu jóge ci A dem ci B jógewaat ci B delluwaat ci B defe ni ça n'honore pas. très bien le secteur de l'hydraulique la laal nga di ci yëngatu ku ne xam ku wax assainissement ak le secteur de l'eau lu am solo la ci ci mim réew loolu dun ko jàngal kenn est-ce que les priorités warul moo waroon mën a nekk ci suñu autorités yi ñu xool ko feneen xool na naka la sénégalais yi di amee. Euh, dund wu ñoŋ ci wàllu ndox ak assainissement que aujourd'hui ñu créer peut-être une situation bi nga xam ne yaa ngi koy wax wàllu politique la mais techniquement boo koy xool dafa laal ay gestion ci surtout assainissement ak ndox euh, ci euh, sunu sunu kilifa yi. mais bien sûr ça da nga résumé li ma wax sànq. des priorités feneen la ak neneen. doxalin bi itam waroon na doon neneen. façon wu rek le problème itam waroon na nekk neneen. Mhm. priorité yi bokk na ci nan la ñuy def ba li nga xamante ni ndox la pour ñun ak li muy jur maanaam après usage de l'eau mm-hmm. on a de l'eau qui s'appelle ndox muy dem ci waa affaire assainissement et c'est pourquoi ñoom ñaar ànd ndox itam dafa ànd ak lu ñuy wooye l'eau de production mm-hmm. bu amul ci réew mi dana jafe lool pour que réew moomu itam développé wu donc moo tax la priorité c'était de voir mhm. en période hivernage nga xam ne ndox mi mu ngi commencé di ñëw di tuuru fépp dafa ne gis nga li xew tuba mhm. te ñu ngi ci màggal gi <laughs> di gis nga li xew Ndakaaru ci yenn artères yi bokk na ci artères yi BRT bi mhm. donc pour ñun loolu moo waroon a nekk li nga xamante ni moo gën a doon priorité un gouvernement que bëgg di xuloo ci def nga lii defuloo lii. xëy na loolu mënta ñàkk ci politique mais ci fi nu toll tey ji ak fi nu mm. jóge mm. defe naa ne xaari ñu woon loolu. absolument ci sunu gouvernement ñu bàyyi kàddu gi Fatou Abdou mu tàbbi ci waxtaan alors mi ñaan aujourd'hui Euh, problème bi mooy benn bu Cheikh Dieng génn le directeur l'ex directeur général de l'ONAS di wax un marché de gré à gré boo xamante ne dañu ko def euh, tey directeur de l'assainissement moom moo génn à la place de Cheikh Tidiane pour wax ne lu jëm ci wàllu curage des canaux dafa am surfacturation aujourd'hui question bi mooy xam naa peut-être bëggoo dugg ci polémique boobu mais est-ce que ONAS waru am ay outils maanaam moyens yoo xam ne moom ci boppam euh, dina mën a defal boppam curage des canaux yooyu ba tax na du ko mën a jël marché yi di ko jox ñeneen ñu ci am ay milliards de francs CFA et mu mën ñu jural polémique bii nii. non li nga wax dëgg la loolu moo war a mën a am. gis nga li nga ko waxee noonu. ci wàllu assainissement exactement li ni mel ne war a mën a doxe itam ci gouvernance de l'eau ndox ak li muy jur ak li mu màbb li mu ëmb kenn du ko dënk keneen ku dul nguur mu ngi mel ni ndox ci sa biir kër tey yow ak sa jëkkër ak seen waa kër ngeen d'accord ni ndox mi doo leen ci wax doo leen ko gérer da ngeen koy dënk keneen l'eau est un bien commun l'assainissement aussi dans le cadre de vie. Les Toubabs, dans le forum social, nous disons, personne ne peut s'occuper du cadre de vie de quelqu'un et de l'assainissement de quelqu'un à son insu. maanaam kenn mënta fexe yeewu am capacité ba toppatool nit euh, nu ñu koy waxee ci ci ci français euh, cetinam ci biir dëkkam ak ci biir këram kenn mën ko toppatool nit tant que jiitaloo ko moom xam nga tey mënoo yeewu sa kër ñëw fëgg ma ne mi ñaan dugal sangu <laughs> mënuloo ko mënuloo ko def ñaari yoon ça veut dire donc l'assainissement est une question de politique publique nationale et sociale et il est bon que état bi am un arsenal de moyens à travers le service publique à l'époque c'était TP travaux publics bu fekkee travaux publics amatul nañ fexe am lu di mel boo xamante ni bu nu soxlaa lu ni mel duñ ko jéegaani fenn duñ ko wuti ci kenn duñ ko fay ci kenn ci sunu bopp lañ koy jëlee ak suñuy moyen budget yooyu nga wax sànq bu doon dan ko tegaloon benn service bu safe qui s'appelle travaux publics yaakaar naa ne coole du am donc mm-hmm. je suis tout à fait d'accord ak yow que ni yooyu priorité ak yooyu doxalin waroon na bokk xëy na ci les ce qu'on appelle les ruptures de gouvernance Et il est évident que tant qu'on continue à décharger l'État de certaines obligations régaliennes di ko denk ay piliers ay privés ce sont des formules de surfacturation ou de soupçons de surfacturation qui peuvent tout le temps di ñëw ak di demaat di ñëwaat di demaat. et bien sûr vous avez parlé de soupçon parce que maintenant c'est sur la place publique c'est par presse interposé moom la ñuy wax ay mbirum surfacturation marché de gré à gré ci loo xam ne dafa am solo parce que ONAS dafa am solo rawatina ci nawet la ñu nekk et est-ce que aujourd'hui problème bi foofu la ñu ko war a yemale c'est-à-dire un ex-directeur général qui sort le directeur de l'assainissement bu koy tontu est-ce que mbiri yoon waru ci am baat pour que ñu solution. oui wala mu leer au moins. ci non non d' foofu d' accord naa ak yow ne yoon war na ci mën a wax bu fekkee ñoo ngi timan tamante dëmm ngeen.